ngeen jëf ami téléspectateur u people 221 yi ñuy suivre ñu ngi am mbégte ci ñëwaat fii ci suñu kër di leen nuyu ku ci nekk di ñaan réew mi jàmm di ñaanal suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla may leen liberté ak indépendance ba ñëwaat ci seen njaboot di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla suñu borom daf leen a jël ah, ci coobareem yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana ah, tey nag ñu seet si sunu kilifa goo xamante ni miin nañ ko ci kër gi waaye nag mii nañ ko ci réew mi aussi tamit muy ci wax lu baax ak def lu baax euh, damay wax ni actualité bi fu mu toll rek dañu leen toppal ñi nga xamante ni seen xam dafa màcc loolu pour ñu andil ci ay mu di Cheikh Mouhamed Thiam euh, dañ lay bàyyi nga nuyoo gi lay suivre fii ci people 221. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billahi alil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem koo xamante ni yaa ngi safoo di seetaan people 221. Mm-hmm. Euh, di leen nuyu ñi góor mu jigéen. Mm-hmm. Euh, di leen am mbégte. Mm-hmm. Euh, ci taxawaat ak yenn fii. di leen nuyu yéen it ci ñëw bi nga xamante ni dikki ngeen fii ñu seet siñ fii. fi may njëkkee mooy fan yi ñu gis coow loo xamante ni amoon na ci diggante kii di Ahmed Cissé ak Mara mu nekk ñu nekk ay sëriñ di di di expliquer di wax ay wax yoo xamante ni ñenn ci sénégalais dañ ko ñaawloo yow ban jàngan nga am ci loolu. waaw li ñoo ciy wax rek jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy si Cissé ndax moom laa seetaan démb. Mhm. déglu naa ay kàddu Ahmed nag dama koy wax ne ko mu bàyyi affaire yi mu nekkee nii. Mhm. affaire yi caaxaan yi mu nekk na ko bàyyi. Mhm. ndax réew mi tal nañ leneen. lu mooy ñëw di théâtre mhm. wala ngay suyee ak film mhm. ndax bi muy wax émission boobu mhm. ma koy déglu dama tegoon ne ne émission boobu moom lu mu ci wax farata la te it pam Pawlish mi nga xamante ni moom la doon dalal moom it wax dëgg yàlla ma demoon ba méttilu woon ko waaye bu ma dégluwaatee vidéo démbam bi bàyyi ko xel ci laa xam ne moom ci affaire caaxaan ci la nekk na bàyyi lu muy def nag ndax réew mi euh, toll nañ foo xamante seeni seeni bëgg-bëgg mooy lu ñu lekk. Mhm. ak lu ñu naan. Mhm. ak buñ feebaree ñu faju mhm. ci loolu lañ toll. waaye tolluñ ci ay jeu ay théâtre di wax wax joo xamante ne amul benn njëriñ. te maa ngi wax ne ko. na moytundiku loolu muy def ndax baaxut ci moom. Mhm. na ko moytundiku ndax baaxut. Mhm. baaxut na ko mhm. moytundiku bu baax a baax ndax julit. wartu bokk ci loo xamante ni du wax loo xamante ni nekkul dëgg ci moom. julit dëgg-dëgg dafa war a wax lu nekk lu nekk loo xam ne dëgg la. ndax yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñett ngi nii boo ko gisee ci nii rek naafeq la. ñu ne ko ban ak ban mu ne Isaa a kasaba. Isaa waxada uxlifa wa Isaa atuma xaana. mooy bu fekkee day wax ak nit ñi la muy wax du dëgg kooku naafeq la. bu fekkee ni it tamit dafay dégg nit ñi bu ko nit ñi diggee du leen ko yokk kooku naa ba ma ko gisee sama soppe la it xam naa ko waaye njumti du ñàkk nag ci nit ki waaye dama koy wax na ko fu mu teg tànkam na ko teggi ndax loo nekkul loo xamante ni lu baax la ci réew mi ndax séentu woon nañ ko feneen fu ma yegg fii amaa Pawlish nag kooku moom lu may wax ci moom du bëri dama ko maa koy topp du ko siifur bu baax a baax tey dégg naa kàddu mu wax ndax nit doo ko mën a àtte lu ci ak kàddum mhm. dégg naa mu wax ne day ku ko fay mu def waaye na moytandiku ko it mhm. ñu koy fay di ko wax loo loo xam ne du dëgg na bàyyi xel ëllëg ba mhm. na ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne tey alalu àdduna tey fii rek lay yem fii rek lay yem bu nit du dee bañ koy jël du yóbbu waaye tamit nag du yóbbu dara lu du jëfam la yóbbu bon nas bàyyi xel bu baax seetaal leneen beneen métier bu mooy ak métier am waxal di waxal ma ma ma fay la. Mhm. ndax dégg naa moo ko waxal ci boppam. Mhm. mu ne waxal ma ma fay la loolu baaxul te yàlla mhm. tereen na ko julit julit wartu wax loo xam ne ni du mhm. dëgg mhm. julit wartu jëf-jëf joo xamante ni mhm. du dëgg julit lépp lu mu war a def rek lu baax la ndax yonentu bi dafa wax ne al muslimu kulluha xayrun julit léppam yiw la bon bu fekkee ñi ngi ne ci réew mu nekk ñu ne ay julit lañ war nañuy fexe góor góorlu ci wax lu baax ci def lu baax ci dimbalante nit ñi ci jaamu yàlla ndax nit ñi sonn nañ bu baax a baax a baax sonn nañ sonn nañ sonn nañ bu baax baax a baax loolu daal mooy li nga xamante moom laa doon wax di laayee biir Euh, sama mbokk moomu nga xam ne nii. Mm. muy Ahmed Cissé. Mm. waaye tamit di ko laajee biir ki nga xamante ni mooy Pawlish ndax mu xam fu ñu teg seen tànk ndax lii moom gis naa ne baaxul. jërëjëf loolu am na solo ma ñëw ci combat bi nga xam ne dafa war a am semaine bi mu di Siteu Papa saw euh, naka nga ko jàngatee. waaw combat nag moom sëñ bi du ci bëri daan ci wax ndax man lépp lu ma ci wax rek dama ko bëgg a utal. Mm-hmm. li nga xamante ni moom mooy euh, argument bu leer. Mm-hmm. combat boobu nag seetuma ko bay xam waaye ni ma gisee muy doxee. ñu dund ne combat bi alhamdulilah rabbil alamin ndax wuyu na borom. combat bu nitu bu neex lay nitu. nitu na lu neex a neex a neex waaye mbiru combat nag moom daana du ma ci di faral di ci wax parce que it du sama mbir ma ci toog di ko wax li ma leen di dénk daal ñoom ñaar kenn ku nekk. nañ xam ne dañoo engagé wu. te ay mbër lañ. dañuy daan seen doole. ay xale lañ avenir mu ci seen kanam. bu ñuy wax nañ rafetal lu ñuy wax. bu ñuy demee ba ci làmbo ji bu ñu fexe ba wóor askan wi ak ñi leen di topp. lii daal mooy li nga xamante ni man moom laa ciy dénk. ndax man mbiru làmb daanaka du ma ci di bëgg leneen. lu ma ci mën a def rek mooy ku ma ci sant ñaan ma ñaanal la ma ci seetloo boo ñëwee boo fii ma seetal la ko. jërëjëf euh, ma ñëw ci wàllu seet boobu ngay wax tey mën nañu xam ci seen anam ngay seetee ak nit ki dangay ñëw rek seetal ko wala nit ki da nga koy bala nga koy ñaanal da koy seetal. waaw man du ma dugg ci benn mbir boo xamante ni gisuma xamuma ko. parce que hmm. bala may engagé wu nit nag pour war laa ñaanal yàlla. Hmm. dama koy seet ba pare. ndax man nag euh, yàlla may na ma xam-xam may na ma ci alquran loo xamante ni amul koo xamante ni mbindeefam yàlla nga ca kaw suuf ñëw ma ma bugg a sa mbir te mbir moomu xaw ma ci dara. Hmm. mbir yi daf may leer parce ci loolu sax Euh, bu ma xëyee daanaka sama téléphone bi. ñu ci bëree bëri dañ may woo damay xëy di wuyu ba. ba ba guddi ma daal di fay di dë di nekkaat ci awraad yi ci liggéeyu jàmm yàlla yi waaye amul kenn koo xamante ni mën naa ko dugg naa ci moom di ko seetaan man na yàlla may na ma loo xamante ni képp ku ma ittuwu sa mbir rek xam ko. ndax ci alquran ci laa koy defee. te doon toog yeneen xam-xam yi jàng naa ko. Mhm. muy xam-xamu ramlu. Mhm. di xam-xamu ilmu nujum di xam-xamu mm-hmm. li nga xamante ni moom mooy seet ci ndox mm-hmm. waaye man li ma li ma yàlla may ci mm-hmm. alquran dama ko yàlla may alquran ci la ma yàlla may moo tax ku ma xam sa tur yaay xam ci sa tur wére mënta turuñ lay wooye nga wuyu ko sax bu ma la bu ma defee li may def bu ma tëddee sama borom daf ma koy xamal sama borom daf may xamal say mbir lépp xamal ma sa sarax xamal ma sa lépp loo xamante ni moom moo aaju ci li war a doxal ci say mbir looloo looloo tax sax bu ma xëyee ñu bëri dañ may dal di ma appel fi dama woo waaw euh, tey ñu gis ñi majeure partie ci ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi dañu am jafe-jafe yi ubbeeku ba mu jaral leen ñuy génn euh, ci réew mi di dem ci yeneen bitim réew ñi mu jaral leen ñu jël alalu jàmbur te ñu gis ni wàllu ubbeeku yàlla sunu borom am na lum la ci dénk loo xam ne koo ci mës a ñaanal defaroon na bay defaraat mën nga ñëndil ay leeral ci loolu dafa am solo ci doomu aadama bi mm-hmm. ndax boo demee ci alquran yàlla ngay wax nan inna fatahnaa laka mm-hmm. fatahan mubiinan mm-hmm. nga demaat yàlla waxaat ne isaa jaa nasrullahi wal fatu wa ra'ayta naasa yadxuluun fi diinillaahi afwaajan nga demaat yàlla di waxaat rabbana iftax baynana wa bayna qawmina bil xaqi wa anta xayru fatihin ba looloo tax nit ki war a ut li nga xamante moo koy ubbi mhm. doomu aadama nag war na ut ay ubbeekaay mhm. moo tax ñun yàlla dimbali nañu ci ci mhm. alquran même laaye boo ma la wax rabbana iftax na baynana wa bayna naa bil xaq wa anta xayru fatihina am na benn saar ci alquran buñ ko ràbbulantee bind ko joxla ko boole ko garab buñ ko war a booleet muy rand li nga xamante ni mooy óolam mhm. li nga xamante mooy timin timin mhm. ak was wasóor jox la ko boo tëju woon ba mënooy am dara it mhm. yàlla dana la ubbi ba nga sant yàlla. Mhm. bu la am am yombu toon it da nga am. Mhm. bu fekkee place nga da nga ko am. Mhm. bu fekkee borom kër nga soxla it dana yàlla dana la ko jox. bu fekkee ne it da ngaa nekk ci barab bëgg faay kawi it. boo ko sangoo cangat googu dana la dana la ubbi insha allahu rabbi. loolu moom yàlla may nañu ci. may goo xamante ni dañ koy jaare ci buntu sant yàlla waaye it ànd ak ragal yàlla it ci li ñuy def moo tax yàlla dañu ko. dañu ko defal ndax yàlla dafa wax ci alquran wala in zakattum la asidannakum mm-hmm. bon li ñu ci yàlla defal xiwal nit ñi dañ bàyyeekoo fu nekk di ñëw mm-hmm. ñu ñuy woo téléphone ba nga xamante nii buñ buñ xëyee foo fu nekk waaye jógee danañu woo téléphone mm-hmm. loolu may gu ñu yàlla may la te yàlla defal nañu ko ci ci buntu ragal yàlla ci lañ ko yàlla defee ndax yàlla moo wax ci alquran wa man yattaqillaaha yaj'al lahu mahrajan wa yarsuqu min haysu laa yaxtasib mm-hmm. mm-hmm. loolu daal ci lañ taxaw bunt boobu mm-hmm. moo tax kuñ ci jëflante ci bunt boobu yàlla danañu defal tawfiix ma ñëw ci li nga xamante ne mu di wàllu sarax sarax am na ñoo xam ne dem nañ ba ni sarax day fànq li nga xamante ni mooy dee sarax yan yan effort lay def ci nit ak ci naka ngay génnee leen nit ay sarax waaw sarax dafa am important ci doomu aadama mhm. ndax yàlla sax moo ko njëkk a wax innamal saddaqaatu lil fuqara wal masaakin ba mu jeex mhm. Mhm. mooy sarax important la ci nit xanaa xamoon sarax dafay guddal nit fan sarax dafay effacer nit bàkkaar loolu yonentu moo ko wax am na sarax nooy saraxee nga xam sa sarax sarax nag balañ la koy nit da mën a génneeloo il faut que dafay xam sa tabian tabian bi mooy li am solo man nag yàlla dimbale na ma ci loolu bu ma xamee sa tabian ci laa laay génneel sarax bi. Mhm. ci laa laay wax nga génnee ko. Mhm. bu la neexee boo uloo ma génneel la ko. Mhm. bu la neexee nga génneel ko sa bopp ndax ki ki ñu wax ne génneel sarax bi kooku moo gën a man ma génnee ko. waaye nag sarax dem na ci ba yàlla dimbale ma ci. ci kàttanam mag mbaaxam. am na ci benn waaye sax mu ngi nekkoon fii nga xam ne New York ko yàlla def na ñëw na fii fekk ñu ci daara ji. Euh, bi mu amee problème. ci wàll kayit pour ñëw. mu war a gàmmu si. te yàgg na koy bëgg a ñëw nee na ma maara bu ne dem naa ci mhm. sëriñ bu ne ñaanlu naa ci mhm. waaye bi yàlla defee mu jokkoog man mhm. sarax rek laa ko génneelu affaire am ñu dox gis nga sarax dafa am important ci nit sénégalais ñu ngi bëri lu ñuy génne ay sarax te xamuñu sarax sarax dafay tëj nit ba du xam dara sarax mën a tëj nit sarax mën a tax nit accidenté boo xamul li nga war a saraxe nit mën a saraxe ñu tëj ko kaso nit mën a saraxe it yàqu ba dootu defaru loolu yépp nag waaye nit nit mën xam nu ñuy saraxee sarax soosu dal di ko génnee daal bu ko génnee sarax soosu dal ko defaral ay mbiram ay buntam ubbeeku mhm. lu ci bari nag man daanaka ñi may ñëwal li mu ci bari dama leen di tigal nañ génne leen sarax yi rek mhm. buñ ko génnee rek seen biir dal di dox mhm. li may bind nag rarement la waaw moom laa di bind waaye sarax moom xëy moom mu caag benn mbindeefam yàlla ci kaw suuf fii nii mu toll man nag diir boobu ba tey gisuma ci kenn koo xamante mos naa la loo sarax te demut sa soppe sax laay doon après nga wul bëtiku di jël teraanga di ma ko jox te yëpp ci buntab sarax la ak xam ko ak jàng ko ak xam nuñ ko mën a génnee doomu ndeysaan waxtaan bi am na solo mu di Cheikh Mouhamed Thiam numéro téléphone baa ngi noonu di daw euh, xamante ne mooy wàllu kaaraange bëgg naa nga ndil ñu ci ay leeral parce que jamono ji ñu bari dañ koo xaw a ñàkk moo leen dugal ci yenn musiba yi waaw kaaraange dafa am solo mm-hmm. te jamono bi ñu toll nii nit ku nekk war ko ko uti. Mhm. ndax dañu toll ci jamono boo xamante ni boo bëreewut ñu bëree daan sa kaw. Mhm. boo bëreewut dañuy bëree daanu sa kaw. Mhm. bon moo tax kenn ku nekk war nga am kaaraange. ndax am na aaya yoo xam ne ci alquran. muy tuddee aayatul xifs. ku ko yàlla may nga xam ko. nga jàmm ci yàlla ba yàlla nangul la ko. koo ci kooko ci jox bu ko takkee insha allah rabbi yàlla dana ko xaar ay mbiram. ndax nit ñi kat. dañoo xeebu dara. Mm-hmm. nit ñi dañoo xeebut. Mm-hmm. ndax doomu aadama it dana ubbeeku ubbeeku goo xamante ni day dem ba mu yàgg am lu ko am lu ko jàpp. Mm-hmm. muy cat dana koy topp te loolu yëpp yàlla dimbali ci alhamdulilahi rabbil alamin muy in yakkaadu. ba in yakkaadu am nañ ci bu wér. ba lu ko dalee mina fa mina jënnati wa naasi loolu it am nañ ci mooy naasi. am nañ ci xam bu wér ci wàllu cangat. boo demee it ci yaasin am nañ ci cangat boo xam ne kuñ ko defal ku ne. ci sa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mhm. boo ko sangooxee mhm. ci kàttanu yàlla yàlla dana la defal dana defal ak mucc mhm. te it danga mucc ci làmmeñ yi da mucc ci bët yi ndax doomu aadama kat bu muccee mos nit ki bu muccee dal di mos li koy li tardeel doomu aadama yëpp seen mbir taxaw mooy ñàkk mucc tax parce que làmmeñ ak bët moo leen topp ba ci des rabit topp leen ndax ñu ci bëri am àndandoor lu ci ëpp doomu aadama yi ñu ngi ànd ak moom te bu fekkee ne nit ki jógut ci boppam mën na ko yàqal. Mm. lu mu dugg mu tas lu mu dugg mu yàqu. Mm. lu yaakaar mu tas fu mu fu mu fu mu yaakaaree pour bëgg a liggéey loolu mën na ko yàqal. Mm-hmm. waaye nag ñun yàlla dimbali nañu ci alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. ci ay garab yoo xamante ni. Mm-hmm. kuñ ko ci kuñ ko ci defal. nga jëfandikoo ko. yàlla dal di def sa mbir dal di ubbeeku. incha allahu rabbi lu mel ni garab bii ngay gis. muy pofton. gis nga ko am na ci xam-xam bu am solo. moom it dañ ci liggéey lu bëree bëri bëri. li ngay gis muy pofton. garab la boo xamante ni ci wàllu kaaraange lay dox. ak ci wàllu ubbeeku. bu ko ko nit xamee yàlla mën na ko jox mu am léegi am am yomb ko. ba dootut yaa ñaan kenn wala dootut yaakaar kenn. biram day dox day ubbeeku ci mboolem domaine boo dem nag. am na ci xam-xam bu baax a baax. yii ngay gisi tamit lii garab la boo xamante ni bu am solo la. moom it day dox ci kaaraange. day dox ci wàll. karange mhm. te di day dox ci wàllu ubbi nit mhm. te it dañ ciy liggéey bu baax a baax a baax ci mhm. doomu aadama yi yeneen yi nga gis nii lii nga gis moom it day dox ci kaaraange waaye day dox ci ku ku néew kàttan kër waaw ci kër gi bii dañ ko ciy liggéey kuñ ko ci jox nag nga jëfandikoo ko incha allahu rabbi sa soxna moom yow yaay mujj di moom muy mujj yow yaay mujj di jël roi bi. Hmm. yaay nekk roi. Hmm. moom moom muy mujj di daw. Hmm. incha allahu rabbi moom dalaay may kàttan kattan ci lay dox. bu baax a baax a baax. li nga xamante ni nag mooy yii nii ngay gis. ñi ay ban samp. lii day dox ci ndoxum siti. ak imurit. ndoxu siti ak imurit. ci lay dox. ndax boo ko boo ci naanee. bu fekkee da ngaa yore imurit. externe ak ah, interne mm-hmm. mooy bu nekk daaxiliyatun wa xaarijiya mm-hmm. bii daf ciy dox moo lu ci gën a gaaw dañ ciy faj mm-hmm. fu nekk ci àddina bi lay nit di ñëw di dañu ko laaj ñu ne koy jox ndax xam-xam la kat garab gi yombut saalum lañ koy utee te def nañ ci luñ ci war a def képp koo xamante ne jëfandikoo ko ko da gis ne ne bu la émurit jàppoon wala ndoxu siti yooyu yëpp dana deñ lii ngay gis nii day dox ci wàll kaaraange moom it mooy gis nga lii boo ci amee dara won ko ñu gis. Mm-hmm. gis nga bii nii. Mm-hmm. même boo ko takkee wala nga def ko ci kër. Mm-hmm. wala nga def ko ci sa oto. yàlla dana la musal ci saytaane. te it boo ko ci takkee. foo ko takk saytaane du ci am aksi xale boo ko takkalit maanaam fee lii nga xamante ni day dal nit. da koy lii day dàq rab. day aar place. te it day dimbale nit. ci ay mbiram mu dal di yomb lii moom ci wàllu kaaraange la. lu jëm ci wàllu place ñu bëri dañ ko ñëw da ko fi jël seesi mhm. lii ngay gis moom mhm. ba tey dafay dox ci li nga xamante ni moom mooy koo xamante ni amul jëkkër te bëgg jëkkër mhm. mu gaaw lii ci lay dox góor goo xamante ni bëgg na soxna bu ñëwee ci lii lañ koy defal mu am mu am soxna lii moom waa Italie xam nañ ko. Mm. waa Espagne. diaspora bi ñëpp. Mm. xam nañ ko même fii ñi nekk fii Dakar sax ñu ci bëri Sénégal ñu ci bëri dañ may woo ci res 14 régions yëpp. Mm. kenn ku nekk dafay ñëw pour ma mën ko ciy defal. gis nga bii it day dox ci wàllu càngat. gu am doole. waaw bii moom càngat la goo xamante ni. ku ku yàlla nar a def nga falu. ndax am na ñoo xamante ni ay. ministre lañ woon jamono yooyu ñuy defaraat. Mm-hmm. am na ci ministère boo xamante ni ba mu ñëwee ci lii laa ko ci defal. Mm-hmm. ba tey mu jotaat place am. tabaarakallaahu mm-hmm. am na ci directeur général yoo xamante ni. lii laa leen ci defal. ñoom it wax dëgg yàlla muy càngat goo xamante ni. day dox ci ubbeeku. day dox tamit ci li nga xamante ni moom mooy kaaraange comme li nga ma laaj. Euh, bii tamit ngay gis. bii bu am doole la. bii ci galaaju kër la. ak galaaju place. Mm-hmm. ak nit koo xam ne dañ lay xeex. Mm-hmm. te nga bañ ñu jëlee la fa. Mm-hmm. boo amee bii ñu def ko suux ko. jox la ko. nga def ko ci sa place. incha allahu rabbi barab boobu kenn mënu la fay jëlee. xataa boo dem ministre wala ngay député. wala ngay directeur général. wala nga nekk ci beneen poste yu mën a doon. boo ñëwee bii te tayit yaay nekk chef. Mm-hmm. boo ñëwee ci kër goo xamante dañ la fay xeex nga jigéen mm-hmm. incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla yàlla dana la ci dimbale bu baax a baax gis nga ndomba lii mm-hmm. moom it day dox ci kaaraange ñetti mbakkan ndomba la boo xamante ni day dox ci kaaraange day dox ci ubbeekaay bii moom moom laa tuddee mos dolli wala takk gis képp koo xamante yaa ngi liggéey ut dara bëgg koo war koo ut bëgg koo jot takkal ndomba lii te it da lay may kaaraangi mhm. ñi bëree bëri bëri dañuy ñëw ma leen koy defal. Mhm. incha allah waaw. Euh, yi mu ngi noonu vraiment waxtaan bi neexoon trop waaye ñu leen ko waxee rek lu du ci nag bi xajul ci siin bi dinañ fi ñëwaat amaat moom yeneen waxtaan toppaat li nga xamante ni mooy actualité tey sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw alhamdulilah awalan wa axiran li ñu waxoon ci bu njëkk bi rek moom la ñuy waxaat. Mhm. sant yàlla bu baax di dénk sama bopp li may dénk ñëpp moo ñu ragal yàlla. jaamu yàlla. Euh, def ndigal yàlla yi bàyyi tere yi góor mhm. eh, góorgóorlu ci rafetal góor mhm. mhm. góorgóorlu ci wax dëgg am yërmaane ci nit ñi eh, te xam ne nit ki pour nga nekk nit complet mooy ngay fexe di jëriñ jaamu yàlla yi ci lii la yàlla may ci sa alal ci sa xam-xam ci sa doole nga def ko ndax loo fi gis rek dafay jeex ndax lu fi lu dul jeex mooy jëf ju baax te nit ku nekk it Euh, li lay li lay jëriñ ëllëg yaa koy liggéey fii ci àdduna te bu la am am jaral ba ngay wax lu du dëgg bul bëgg alali tamit ba ngay wax lu dëgg bul sopp nit it ba wax lu du dëgg ndax mbir yëpp ci mujj ci dëgg lay nekk xajjaal xaq wa sayxal baatin innal baatina kaana saxuqan maa ngi waxaat tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy samay mbokki imam te nga xamante ni muy fàttali nit ñi ne leen nekk ci néegab yàlla jaru xëccoo bu fekkee yàlla rek moo tax jaru doomu aadama bi da ndax suñ subhanahu wa taala dafa wax ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan bon kanaan néeg ba yàllaa ko moom ku nekk am na ci agsi ñëw bon nañu rafetalal te xam ne jarul xëccoo bi jarul ngaayoo bi ndax ñaaw na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jubal ñooy takk sëy yi ñoom ñoom lañu yaakaari tamit ñoom ñooy tudd doom yi ñoom lañ yaakaar ñu jiite ci diine ji bon ñoom waruñu xëccoo ndax jullit ñi kat am na ci loo xamante ni yàlla mënoon na leen koy xamal. Mhm. muy leleetul xadri nga xam ne ni moo gën. Mhm. ci li ko waral yàlla xamalu ko nit ki. Mhm. mooy ci xëccoo rek la. ndax yàlla nee na bu ngeen xëccoo dara. ma dindi secret boobu. la ngeen nara la fa naroon a nekk ci lu lu leen di jëriñ. dama koy teggi def ko fële. bon ñu bàyyiwaat delloo si xat suñu xel ne jiite kaay ma jiite la jarut yenn yi. jarut yenn yi loolu lañ koy ñaawloo ci. politique bi nga xam ne am na ci. ndax Sénégal kat dañoo toll ci dëkk boo xamante ni. ñi fi nekk ci dëkk bi. lii lii seen intérêt bopp la ñu doxee. Mhm. te ñu doxee noonu te nit ki war na fexe sàmm kàddum. Mhm. ndax alxuraan def na oofu bi ahdi. inna ahdi kaane mas'ul mas'ulan mhm. nit ku nekk danañ la ko laaj. bon ñi politique nañ rafetal seen lépp. li xew nag gis nañ ko ci parti pouvoir beeg. pa opposition bi. ndax loolu it li lu nekk ci àddina bi li ñu war a leeral la te ñu bàyyi loo ko xel ñoom it te xam ne lu yàlla dogal bi yàlla dogal nangu ko moo gën. ndax taxal bu yàlla taxal sànni ca matt sax mu tàkk moo gën nga jéem koy fay. nit ñi nañ xam ne yàlla mooy yëkkati mooy def ko ko soob. Mhm. te ki ki yàlla yëkkati léegi muy xalifa général di kullu politicien kooku mooy usman Sonko mhm. neex ak mu naqar lépp te waxan wa karaan jamono bii ci li may waxee waxee ku ma ko pour ana kii lu ko neex ndax man xaw ma sonko mhm. xaw ma ku nekk ci sonko mhm. waaye nag li ma gis te xam-xamu baatin may ma ko mhm. loolu laa gis ne fi mu toll nii actualité lu di tax lu nii moom moo nekk tet ci kanam mooy Ousmane Sonko moom la yàlla jiital te mooy coobareeb yàlla ki coobare yàlla nag mooy def moo ne inna laa yubsitu risq li man yesaa man yàlla maay jox ku ma neex yàlla nag jox na ko actualité fu mu toll nii maa ngi koy dénk nag moom di dénk sama bopp na bàyyi xel bu baax ci boppam ci ak xuraasam bëri na ku naan la waaw te fekk déedéet mhm. am na ñu lay wax ne la fii nga ne te fekk ñu lay fakasal mhm. bon mbir mi ci biir la moom it na bàyyi xel bu baax ci boppam te xam ne ñii duñu ay adversaire am mhm. la ndax ku yëkkati jàll nag suuf bu kawee dañ koo jàll bon ñiy wax ci moom wax yi bu mu ko tontu ndax ku jiitu jiitul demal ci kanam loolu laa koy dénk waaye ñiit ñi fi bàyyi xel bu baax xam ne bu buñ fi nekkal seen bopp buñ mm-hmm. sosal nit mm-hmm. ndax lu waaye wax bu ëllëgee dina ko wax mm-hmm. maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di wax baat boo xamante it ne tàggoo bu du tàggoo lay doon di leen gërëm yéen waa people 221 ñëw bi ngeen ñëw fii seet suñu fekk ñu suñu roq ñu nekk ci daarul neex ma ji nga xam ne jàng ak jàngale ci lañ nekk. Mhm. di dimbalante jaamu yàlla yi. Mhm. yéen ngeen ñëw ne dañuy ñëw pour dimbalante wan la wane. Mhm. li nga xamante ni pour àddina bi xam dëgg dëgg. ñu ko ñu xam ko xam fu ñu teg seen tànk. ndax fi mu toll ñu bëri ñu ngi naxee. fi mu ñu bëri ñu ngi wootee te ñu ci bëri amuñ benn xam-xam. ndax nit boo xam sukkandikuwul ci alxuraan sunna rek yooju wax mën nañ koy dàq te yàlla alhamdulilah ñu ngi fii ñu bëri dañ fi ñëw seeni soxla di fi fajoo si xàmmeewuñ ko am ak ku ñàkk xàmmeewuñ baadoola baak ah, pat fonctionnaire bi ñun yàllaa ñu fi teg taaj ñu fi ñu nekk ñëpp ndax amma maa yen foo naas yi fa mm-hmm. yu mag si fi ardi la alquran wax mm-hmm. ñu ngi leen di gërëm di leen sant mm-hmm. di leen ñaanal yàlla bu baax wa axiru daxawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu Cheikh Mouhamed Thiam la numéro téléphone bàyyi noonu di daw ci écran bi ñu amoon ak moom waxtaan bu yaatu euh, li ñuy wax rek di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 ngeen jëf